naa bay bëgg wax sànni poids bi nga xam ne ni moom la Pape Ndoye jël. waaye Fatim Pape Ndoye naka jekk ne la mës a toll. Pape Ndoye c'est le fantôme. Jackson Pape Ndoye. ndeysaan Jackson Pape Ndoye. Pape Ndoye daa mel naa yàkkamtee looy wax. Jackson suñu ndeyjoor. mais est-ce que Pape Ndoye yàkkamti wala dem Fatim. Pape na def nank arbitre consulté na ñaari chichi wax na ñaari mbër yi arbitre sifflé na ah arbitre sifflé na première édition Jackson eh. ñu ngi xaax Jackson xeexu mbedd la xeex Jackson da koy a jiitu ci maninam Pam Doy da ko bëgg a xeexloo ba jumloo ko Jackson Pam Doy da ko jiitu ci maninam Jackson Guédiawaye Pape Ndoye écurie Fass. Pape Ndoye écurie Fass. ñu ngay cooki Fatim bëgg naa lii Fatim ñu ngay cooki Fatim. buur gi suma lu ma xam jël na ko. dem na na. oh là là Pape Ndoye ko ñëwal. Jackson ak bu Fass grand combat. première sortie bu Fass waa Fass seen bëgg la Jackson ngi dóor Jackson ngi dóor Pape Ndoye. Jackson ngi door Pam Doy daw na Pam Doy daw na Pam Pam Doy lii lan la gaañu de Fatim xoolal ëffalkat yi xoolal ëffalkat yi xale yi waaw Doy daw na mais daw ba ci góora la arbitre sifflé waat na arbitre sifflé Lac Rose gisuma ko waaye Fatim fit wa toogul. non gisuma ko waaye toogatul tax. Moustapha Gueye gisuma ko waaye fit wa toogul. laay Moustapha Gueye ay waaye fit wa toogul. Maodo Maodo. ay waay bu bëggee patam patamee waa ji du sotti. sotti du sotti. ku muy bëree ragalu ko Fatim. déedéet Jackson ragalu ko. ragalu ko. ay Jackson. xam nga ni sama ñaareel Jackson la tudd. yow mooy mooy Mounass. Jackson dana ko door mu daanu. dina ko door mu daan. Jackson day jóge ak moom. Jackson dana ko door mu daan. Jackson dana ko door mu daan. Pam Ndoye daanu na. door na ko mu daanu. door na ko mu daanu. door na ko door na ko mu daanu Fatim. Jackson door na ko lii lan la Fatim. lii lan la Fatim. pour gën. moom laa yi sogo. pour que jëy na weel naa naan ba dem naa. ay day jëy na daanan ba dem na mbari joy na ween daanan ba dem na